lah wasalaatu wasalaam ala nabiyihi alqaail sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ixwat aliman ayuha al ahbab iclamu anna fi israil nawadi li kurati alqadam walakin hal tunfiqu alayha mi'at malaayin kama tunfaqu adduwalul al islamiya mbokk jullit yi ñun ñëpp nañu xam ne Israël am na équipe bu football waaye tey ndax nii ñuy dépassé ay millions dëkk yi nga xam ne ñooy dëkk lislaam xoolal tey dëkku lislaam yi ñooy jóge ci seen dëkk yi dem Europe di jënd équipe yi sooy xool équipe yi dañ lay wax équipe bi milliardaire diw ci dëkk sàngam dëkku islaam moom moo ko moom mu bàyyi ay jullit yoo xamante ne tey ay bomb ñu ngi leen di tiim di leen largué ay bomb tey ah ummaal islaamiya bu ñu xamoon ni leen yahud yi jekkoo bu ñu xamoon ni leen yoonu yàlla yi jekkoo ci ay musiba kon wallahi dinañ yeewu xoolal tey riche ma nga jàpp jullit yi fa la caaleb di leen taw ay bomb néeg yi di màbb seen kaw ñuy dee jigéen ak góor jamono yooyu ñoo ngi football coupe d'Afrique xoolal li gën a garaaw Égypte dañoo bàyyi ba coupe d'Afrique bi jege ñu daal di rey Mursi ba pare ñu ne Égypte bu fi kenn naqarlu bu fi ñaari nit daje ñetti nit ci waa këram ñoo ko sangi ñoo ko jullee ñoo ko suul ñu ne amul jooy amul jaale di garder bàmmeel bi <laughs> moo tax yàlla ne leen da ngeen bañoon naqar dinaa leen indil naqar da ngeen bañoon jooy dingeen ngeen jooy dañoo bañoon jooy Mursi Égypte keroog bañ leen gañee ñëpp jooy nañ dañoo bañoon am naqar bañ leen gañee ñëpp am naqar ñu tas fédération football ba ñu nekk ci crise xoolal parce que xamuñu ku ñu rey parce que xamuñu ki ñu amal affaire. ixwaan yi kaay leen ñu delloo si waat xel yi xoolal jamono bi ñu koy def ñetti fan Coupe d'Afrique bi commencé. pour lan ñu nëbb àdduna bi mu mbon googu parce que waa jooju nga xam ne bopp la defar na àdduna xilaafa dawlal islaamiya la ne dellu siwaat ci àdduna waaye xoolal julli di nii la ñuy def chaque jour di jàpp kàngam yi di rey nit ñi nelaw nekk ci football yi ak stade yi ak yi di seetaan programme yi noonu la ñuy naxee julli di suñ defee dara rek indi dara mu daal di koy mësal masa kenn du xam li xew programme yi di jàll julli di sax seen doom yi nekk fi daf yaramu neen am na yoo xamante ne sax ay jullit yàlla du leen ci jàppale match de football tax ab ay jullit génn ci mbedd yi sol yu bon góor ak jigéen ngay dajeeg jigéen sax doo am foo ko mun a xool mu leer leen ne match bi coupe bi fi ñëwoon njaaloo kese moo fi nekk xale yu jigéen yëpp dañuy xëy ëmb ne loolu yàlla dina ko seetaan ci 95 pour cent musulman soo waxee ñu ne dëkk bu ñu doon football ñoom tamit ay jullit lañ ñun ñëpp a yem ñun ñoom nax nañ ñu dugal nañu ñu ci butéel bi ñëpp yem tey amul dëkk bu ñu naxul wax naa leen ne alamul islam yi lañ gën a nax ci match de football yi Amérique a ngi ne football tey taxul mu yegg fi mu yegg football Amérique fa ñu yóbbu ci doole riche fa ñu toll ci doole ah, waa ju gàtt jooju nekk fële football taxul ñu yegg fa ñoom lan moo leen fa yeggloo mooy xam-xam ñun tey loolu lañ ñu xañ suñu université yi vide na suñu jàng jàng yi baaxatul niveau yi dara baaxatu ci dara lan la na ngeen fexe ba nit ñi mën a liir waaye bu ñu bu ñu am xam-xam tey loolu mooy suñu jàng kon nag ñun ñi nga xam ne ay jullit lañ nañu xam ne ñun yàlla binduñu pour àdduna wala yàlla bi mu ñuy sàkk ci àdduna dafa am programme bu tax mu indi ñu fi du football du làmb du théâtre du nekk ay artiste ay caaxaan du looloo tax yàlla binduñu yàlla wax nañu ko leer na nañ loolu buñ ci jógee nañ ci yar suñuy doom ci vacances lañ nekk bu kenn bàyyi dooma muy tambambalu li ñuy xeex xeex daara yi ak di indi programme yi bon fexe leen seen doom yi jàngi seen diine fexe leen ngeen conscientiser seen doom yi ba ñu xam ne lii ci télé yi lii ci mbedd mi ay caaxaan la akum poote yàlla buggul foo pourtant ca jamono jooju nit ñi di riir di daw ci ay caaxaanu adduna am na ci ay benn benn yu ndaw ndeysaan di mokkal alxuraan am nañ fi champion du monde alxuraan ñaata yoon est-ce que dëkk bi keroog nii ñuy teeroo jour yi xoolal ñii dem xamuñu dara indiwuñ fi tus nit ñi di leen teeru pare di leen jox ay millions xanaa sax ana xale yi demoon jàngi alxuraan ndax ñii ñu teeroo keroog zori teeroo nañ leen loolu ah lu tax lan moo ciy dëgg vingt million yeeg caaxaan yi tey ku ciy dee fi nga koy bàyyi ñu watat la yóggoon la ci morgue bi sang la sang la jullee la gas bàmmeel ba mu xoot ne la bajang ci biir ñaari malaaka fekk la fa duñ la laaj coupe de foot coupe lu ñu lay wax maa ka lan moo doon sa téere alxuraan bi la laaj te alxuraan boobu la ñu fexe ñun ñëpp ñu daal koy dummóoyu ñun ñëpp ñu wan ko ginnaaw topp ci ay caaxaan topp ci po topp ci loo xamante ne du dara kon nan leen yeewu ixwatal imaan ñun jullit ñi dañoo yor message dañoo yor programme bu ñu yàlla wàcceel dañoo yor programme Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lan pour islamiser adduna bi yonent bi programme la yoroon pour génne doomu aadama yi ci lëndëm dugal leen ci leer programme boobu alquran wax na ko bu yàgg kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaas min azulumat ila nuur téere bu tol noonu cheikh abdulhamid Kiski dafay wax dama waaru ci monde islamique rabbuhum nuur wa kitaabuhum nuur wa nabiyuhum nuur mu ne kayfa yaisuuna fi zulumaat kayfa yaisuuna fi zulumaat wa rabbuhum nuur wa kitaabuhum nuur wa nabiyuhum nuur kayfa naisu fi zalaam fi zalaam ayuha al ahbab suñu boroom leer la allahu nuuru samawati wal ard téere bi leer la kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaas min azulumaat waaw ñu am yàlla leer téere leer yonent leer wasira siraajam muniira léegi ñun ñu làmp yu leer yooyu yëpp ñun ñu nekk ci lëndëm ndax loolu xel nangu na ko lu ko waral mooy ñàkk topp li ñu yàlla indil ñàkk a topp li ñu yàlla indil loolu moo ñu jural li ñàkk a topp programme Seydina Muhammad ñu topp ci ginnaaw tubaab yi di daw guddeeg bëccëg football seetaan mas da ngay gis ay jullit yoo xam ne cinq heures ci ngoon la ñu taal télé di seetaan match ba vingt et une heures match rek suñu paree di werante di werante ba minuit suñu paree ñu tëddi xëy suba encore ci liggéeykaay yi di werante ba midi jot réew moom fu ñu jëm ci ñoo xam ne ñooñu ñuy werante ak ñooñu ñuy wax xamuñ ci maamu kenn